docteur Ma Anta Mbow ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. yow yaay coordonnateur cadre libéraux démocrate réformateur LDR Yeesal bokk nga itam ci pôle communication bu candidat amadu Ba. ñoo ngi lay nuyu di la fay di nuyu sa auditeurs yëpp ñu nga xamante ni ñoo ngi déglu di déglu say question ngir ñu mën a xalaat ci xew ci li jëm ci commission d' enquête bi nga xam ni taxawaloon nañ ko. fanweeri fan ax benn ci weeru janvier ngir rek mën a lëñbët li nga xam ni moo jëm ci élimination Karim Wade li ni mel nag commission boobu daan nañ koy euh, daaneel tas tasar ba mu jeex lan moo ci sa commentaire bu njëkk docteur. Oh, waaw jeex na ndax euh, li ma xam mooy yoon moo ci dugg ndax ki nga xamante ni moom la ñu tuumaal kooku kooku ki nga xam ni moom la ñu tey euh, dafa porter plainte ci justice te ni assemblée nationale di doxee su commission d' enquête parlementaire amee à chaque fois bu ñu euh, justice désiré woo ci question boobu rek day assemblée nationale moom da ciy daal di génn maanaam looloo tax ñu suspendre euh, la commission d' enquête parlementaire ci loolu tax ñu ci félicité suñu parti di ci félicité le président Modou Diagne Fada ndax bu ngeen ko fàttali ne altine bii passé dafa bind ni bu sañoon assemblée nationale day dakkal dakkal commission boobu su ko defee euh, conseil constitutionnel bi nga xamante ni moom ci ci la bokk ak exécutif bi nga xamante ni Macky Sall président Macky Sall moo ko jiite ak assemblée nationale daal mën a am seen diggante ngir ñu mën a waxtaan xool nañu rek leen mbir yi loolu nag euh, buñ ko defee ci suba ga rek lañu wax nii président suspendre na euh, commission d' enquête parlementaire boobu boo xamante ni euh, ci yoon lañ nekkoon man mbir mi ni ma ko gisee mooy. oui ci yoon la nekkoon. moom li mu war a def def na ko. tay texte la ko teg le président Macky Sall aussi li mu war a def ci texte la ko teg conseil constitutionnel aussi li mu war a def ci texte la ko teg kon loolu mooy wan ni Sénégal dafa am ñetti kenu yi nga xamante ni moo ko téye kenu yooyu dafa dëgër te kenn ku ne yaa ngi doxal sa mbir man gëmuma indépendance des institutions. ndax preuve baa ngi nii institution bu ne mën ngaa wax sa morom arrêté kon indépendance amul li ma gëm mooy xajale kenn ku ne nga dox li nga war a dox am sa autonomie dox la nga war a dox bàyyi kee nga war a dox nit làng loolu nag bu kenn demee ba war a jàdd keneen ka jooyoon ko noonu lamb di doxee ñun ñu ci sant ci gërëm di ci di ci kontaan di wax ni ñu doon wax ni Sénégal naxoon na Sénégal du dëkk démocratie Sénégal du dëkk boo xamante ni institution yi doxul ñooñu tey jii war nañu noppi. te ñëpp way nañ ko ñëpp wayat nañ Sénégal tey waaye Sénégal jolliwaat na ci bitim réew opposition bi way na Sénégal euh, euh, porte au pouvoir way na Sénégal tem réew noonu la war a doxee te man loolu suuful la boo xamante ni dama ci kontaan ndax dafa indi day indi njariñ day indi njariñ day tax ñu wàññi am nañu réew réew mu am ay kanu yu dëgër te loolu lu am solo la. te tuuma bi itam waruñu ko mën a leeral. nga ma ne tuuma bi est-ce que waruñu woon mu ko gën ko mën a leeral tey. mais bu justice doxee. dana ko leeral ndax ki porte plainte. jàpp naa ni war naa dem ba jusqu'au bout. ñi nga xamante ne ci soxlaa ci aussi. war nañoo dem jusqu'au bout. ndax tamit nag jàpp naa ni am réew. doo jékki-jékki rek. sos loo xamante ni. amul ñu takkal ci ay nit te tegu ñu ko leer. man euh, ni ma jàppee daal. Euh, mbir moom bu xasee ba jolli ba ñëpp jëm kaw ba ni lii moo tax ba mu indi mel ni report élection ndax élection yi report nañ ko de fait loolu jàpp naan dañ ko war a leeral ay junni opposant ak yi ñi nga xam ne ñoo bokk ci société civile bi daanaka manifester nañ mu nekk manifestation bu njëkk ginnaaw rek bu nu autorisé ba ñu waxee ni rek li nga xam ni moom moo jëm ci report élection présidentielle yi te itam ñu sàkkoon li ni mel ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février li ni mel daanaka du am conseil constitutionnel daanaka wax na ko itam euh, mooy marche bi nga xam ne itam autorisé na ko mais lan mooy sa commentaire ci wàll wi ni ah commentaire dëkk buy dox rek dëkk buy dox yaa ngi naan opposant la ak société civile mais mën naa nekk aussi ñu bokk ci pouvoir bi ndax nag yëf yi ah, bett nañu bëri bul jàpp ni ñi nga xamante ni sama daan dama jàpp Sénégal kenn bëggul reporté élection ba ci président Macky Sall ndax wayu Macky wayu Sénégal kenn waru ko fay kon su fekkee dañu ni boo bëggee marche da ngaa war a déclaré mais soo déclaré aussi da ngay déglu parce que kii apprécier ba xam mën ngaa marche ndax wóor na ndax soo demee dara du fa yàqu ndax doo yàqal kenn. ndax tey doo mais docteur nag marche bu ñu autorisé bi amul problème kooku noonu du ñun. mais ne la kooku noonu du ñun du man du yow kooku nag bu apprécier bu la nee bul marche da nga war a teg suuf comme ñoom ni ñu ko defee ndax ajuma bee paas lañ ko jàppoon ban ne leen déet ñu teg ko ci suuf tey biñ ne leen waaw marche nañu te dara ci jot a loolu laa jàpp ne am réew noonu la war a doxee kenn ku ne da ngay jox cër waaye bu la teree marche day fokk dëgg dem. ci créer ay coow ñu ñu dajadee loolu jaaduwul te loolu lépp mën naa ñàkk dëkk la boo xamante ni ñun vitrine la ñun seet nañ lañu parce que li fi nit ñi def yëpp ci démocratie fii lañ ko tàmbalee bu fàtte fàttee woon ni Sénégal moo nekkoon capitale France lépp fii la tàmbalee lépp ci cheminots yi ba léegi grève ak marche ak yooyu dañ mais bépp boo xamante ni autorités yi juboon nañ loolu la ñu war a continuer beneen bi ci des mooy la ñuy wax di bi nga xamante nga amul tous yi des parti kilifa nga ci nit ci parti nga ci Sénégal kenn warul forcer kenn warul xëccoo kenn warul xeex dañuy waxtaan ba jubóo ci mbir ñu doxal ko parce que ñi day yàqule du ñu du ñu ko jiite ñi day gaañu du seen doom seen doom moo tax ñuy appeler ñu am euh, opposition ay kilifa yu dal kilifa yu mature kilifa yoo xamante ni di leen mën a apprécier xool lu ñu war a def luy lu ko wundu lu cocc la lu cosaan la ak luy mujj su ko defee bu ñu ko defee kenn du ci am problème di ko Sénégal jëm kanam. gis nañ ci ab communiqué bi nga xam ni présidence de la république ñoom ñoo ko daal di euh, bind ci njiit la sax Yoro Dia euh, ñoom nee nañ jël nañ at ci li nga xam ni conseil constitutionnel jot na ci àddu ci li nga xam ni moo jëm ci report élection yooyu lool euh, yow naka nga jàngatee di ni mel. mais di ci féliciter le président Macky Sall le président jëlul acte kese jël acte mooy dégg naa la nga def ni dégg naa la ba pare dinaa ko jëfee dinaa ko jëfee ci li ma man dinaa ay waxtaan. ak ñi ma ko war a wooteel ak ñi ma ko war a waxal léegi nag ka kay bokk bu gisul bokk conseil constitutionnel du ko wax euh, le président Macky Sall ndax nag président Macky Sall moom la yaa euh, yoon wax mu convoqué moom moo mën a convoqué moo mën a joxe dat kon conseil constitutionnel def na war a def yam fa mu war a yam joxaat na Macky Sall bal bi moom dina def li mu war a def yam fa mu war a yam assemblée yam fa mu war a yam su ko defee ñetti kër yooyu nga xamante ni ñoom ngànk réew mi di dox ñu boole ko suñu kilifa yi ak borom xam yi. ak borom yi xel yi ak borom yi alal yi nekk ci réew mi ñu jël suñu réew di ko waxtaane di ko doxal te loolu dañ ciy féliciter le président Macky Sall du ci am contenté bu baax te jàpp naa ni démocrate bu toll ni moom liggéey li mu fi liggéey du yàq wayam du yàq wayu Sénégal. te nee na dina amal itam ay concertation mën nañ jàpp ni itam ñaar fukki candidat yi la. waxam déggoo dama wax sama wax nee naa la ñetti bokk du ma ko xam ndax loolu moo ci amee cëggal gu yëm noonu ni muy mooy ndax candidat yi kese ñoo koy bokk. ah bu jàppee ni noonu la war demee mu doxalee ko noonu bu jàppee dañuy dañ koo war a waxtaane Sénégal yëpp ak politique yëpp mu doxalee ko noonu waaye man li ma jàpp dama jàpp ni élection ñu doon wax aar élection da doon wax ne élection réew mee ko moom population bee ko moom même bu fekkee ni ci candidat yooyu te la ñuy tànn président ñuy ñaan yàlla Amadou Ba gagné dès le premier tour te ñu yéene ko ko ñëpp ñëw def seen doole ñu gagné ndax loolu mooy apaisement Sénégal loolu mooy indi continuité loolu mooy tax comme ni nga ko waxee. li bi Macky Sall def moo baax moom ci koo ko rafetal gën koo taaral ku gis nu doxale lan la ko di nga xam ni koo xamante ni la bu ko joxee Sénégal lu tellu mën a def ndax liggéey bi bi mu xewee na ñu bari ñoo xamante ni am na ñu xalaate woon man ñu am jaaba waaye moom xam lan mooy Sénégal xam lan mooy état moo tax mu déglu ko ànd ko Macky Sall xam ne institution la ba Macky Sall renouvelé waat ko moom mu wax ak ni Macky kontaan na ci renouvelé mi ñu ko ñu ànd doxal noonu la am réew war a doxee gis nga ku ñu xuloo xuloo bu ndaw doo xuloo xuloo bu mag te ko bokk ci tool yi doo ànd bi comme moom nag Sénégal yu bari tax na xam na ni Amadou Ba gañewaat na yu baax ci loolu donc Macky Sall président Macky Sall lu ci waxtaan bee ma jàpp ni comme élection koy aar ci bokk dañoo war a ubbi waxtaan ñëpp bokk ci président joxe dat ñu dem ci élection yi ci am Amadou Ba gañe Sénégal jëm kanam coalition benn Bokk Yaakaar nag euh, coow lii amoon na ay coow division amoon na ci ñii dañuy génn wax lii suba ñeneen génn wax la le coalition bi tey wala lépp euh, suul ngeen ko amul benn problème. li ma la daal mooy léegi nag euh, boo amee ñu échappé tamit jàpp naa ni ñoom ñëpp am na fu ko teg waaye li ci am solo mooy coalition moom tey la gën a dëgër ndax am na ñu ci war ñu ci dugg. am na ñu ci coalition bi moom li ma ko waxee rek dama ni li ñu Ablaye Wade jàngal mooy. yéen ñi nekk ci kër gi ci biir néeg yi mën ngeen di waxante waaye bu kenn génn kër gi coow nag mënul ñàkk si mbooloo mais ay ay coow mineur yoo xamante nii nit ñi mën nañ koo gérer leen déggante te bu essentiel bi taxawee rono yëpp dina jubaat tafe jub ñu julli julli gi julli julli gi mooy gagné incha allah dès le premier tour dina yombam mais àdduna dara yomb fii waaye dara jafe fi na nga xam ni ngay jëfee li nga war a jëfee rek def la ko war def yàlla nag moom noppi na mooy maye ndam yàlla na may Amadou Ba ndam may suñu coalition ndam. xam nga ni fan yi yëpp yaa ngi dégg li nga xam ni moom moo jëm ci rumandaat mbirum amnistie euh, projet de loi bi nga xam ni itam semaine bi yëpp daanaka ñu ngi koy waxtaanee alors yow lan moo ciy sa xalaat. lu ñu rumandaat nag du ma ci faral di wax. ndax daa feesagul. ñi nga xamante ni ñoom la ko seq. ak ña may wax ñoom ñëpp dégguma ko. gisuma kayit gu nu bind. lu ñu rumandaat la engagé. bis bu nee teel ci biti rek daañu ci wax li ñu xam waaye li ma xam daal mooy. képp koo xamante ni. daa euh, am nga say faculté mentale ak physique nga taxaw wax loo xamante ni ñome la ba yoon war laa topp man li ma jàpp yoon daf laa war a topp ndax boo waxee loolu yoon topp la boo lëggee kenn ko wax yoon dootu ko topp ndax fee yu nu xas am nit te dootuñu ca dootuñu topp kenn kon nag ni ma ko daal lu ñuy romandaat loolu la yam ci romandaat rek dañu bàyyi justice def def def euh, rôle am def liggéeyam fexe nag ba bu mu bu mu tëj ku seel ku ku deful dara waaye bu mu bàyyi ku nu tuumaal te ku bu mu bàyyi ku def dara. yow ànd nga ci personnellement lu ci sa xalaat. waaye yow lu ñu ruumanaat loo bëgg mooy am ci xalaat aw ma ci xalaat li ma la waxee wax naa la ko lu ñu ruumanaat tey di mi nag du ma wax ci waxee ruumanaat am déet. <laughs> léegi gis nañu itam yenn ci ay prisonniers yu ñu duppee politique ñu ngi leen di génne fan yi yëpp ci kaso bi lan moo ci sa commentaire. man xaw ma lan mooy prisonnier politique. ku dem di def marche nga def di marche ñu la. yow nekk ba nga fa nekk rek mën naa am defoo dara mën naa am bokkoo ci sax waaye nekk ba nga fa nekk ci bërëb ba nga fa nekk rek mooy sa malchance kon jàpp la ñëpp ñi nga xamante ni lañ ca def wala lañ ca wax yoon waaye nañu du deli yu garaaw ah ñu bàyyi leen ñu ñibbi man man ànd naa ca ndax nag liberté mooy yoon privation de la liberté exception la war a doon donc kaso moom yéenewuma ko kenn yàgg damaa toog ci plateau di ñaan président Macky Sall ñu am ci am nañ ci ay xarit yoo xam ne na bokkuñu si parce que ñooñu ñu Sall la ñu àndal nga xam ñooñu duñu marche waaye nag erreur yu demee noonu day am ñooñu pour ci bàyyi ñu ñibbi wax dëgg yàlla euh, man dama ci ànd te pour ci mën a bàyyi mu ñibbi nañ ko bàyyi su ko defee kaso yu féex ñëpp féex Sénégal am jàmm. loolu yëpp ci apaisement la. apaise xam nga apaisement moom. man apaisement bëgguma ko. xam nga tax apaisement bu dee am rek c'est daa tàng man su ma sañoon ci paix la ñuy dëkk. waaw kon saa yu tàngee rek ba ñu jógee ci paix nañ dellu si paix bu fekkee ni jàmm moom mooy li gën ñëpp moom la tàkku te suñu mag nee na gis ma ko fii ci àdduna lu ko fi gën gis ma kon jëm àlaxara lu ko fa jëm kon daal liñ ñu bëgg ñëpp am jàmm ndax nag Sénégal daa soxla ay doomam ñu tabax ko. jërëjëf docteur Mata Mbow. ñoo ngay sant di la gërëm yow tamit di sant sa auditeurs yi di sant waa rajo bi yëpp di jégalu nag lépp lu ñu wax lu juum rek du suñu dañoo juum. jub nag ñëpp koy def ñëpp lu ci jub nag lu ci euh, kii ñu jëriñoo ko maa di la fàttali ni yow yaay coordonnateur cadre libéraux démocrate réformateur LDR Yeesal bokk nga itam ci pôle communication bu candidat Amadou Ba. Amadou Ba.